Slimane bokki téléspectateur de la RTS 2 comme à chaque vendredi à xarit à tout le monde Rasoul mooy ñëwaat ci seen émission Géewu Nabiyan fas yéene jàkkaarloog yéen waaye fas yéene ngeen jàkkaarloo ak tàggat yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yi taaw yi ma janool waaye laata du dañuy dugg ci étude diine yi dem ba Touba ziar xalif général ba dem ba Tiwaawoon zia Khalil général ba dugg Léona Niassène ziar xalif général ba waaye dugg Medina Baye ziar xalif général ba ñëw Yoff Laayeen ziar xalif général ba euh, képp kuy xalif général ci àdduna rek ñu ngi lay jox sa wàccuwaay di la bége bu baax a baax a baax a baax fàttewu ñu benn xalif général ñi ñu yobbu rek bu ñu leen tuddee ñu yóbbu yóbbaale ñu ñëpp géew waaye bu ñu leen tuddee aussi ñu yóbbaale ñu géew taalibe yi bàyyi ñu benn taalibi fu taalibi nekk rek ñu ngi lay wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan suñu réew mi jàmm waaye di ñaanal ñi tëdd ci hôpitaux yi di ñaan yal na yàlla fëgg seen bopp instant bi képp ku nekk ci tolof tolof yal na la ci yàlla génnee ci nu mu gën a gaawee nga dellu sa sago bi yoxmati nabil Mustafa alayhi salaatu wasalaam comme ni ma leen ko waxee rek ngeen nekk ci seen émission ëttu géewu nabiyan euh, ma jàkkaarloo ak tey ji sunu mbokk ñaseen euh, yi waa kër Mam Baye Laye astaghfirullah benn la rek su ma ne Mam Baye rek ñëw naa ci maam euh, euh, Mam ma jàkkaarloo tey ji ak waa kër Mam Baye benn la ndax fan yu passé rek seen mbokk laa invité waa kër Mam Baye Laye ndeysaan ñu nekkoon ci appel bi xam naa loolu moo ma yóbbuwaale ma jàkkaarloo ak sama xarit sama soppe ñu koy wax Samba Zakiya Samba zaki ñu ngi lay dalal di la wax ahlan wa sahlan ci géewu Nabiya. macha allah shukran zaida Maymuna Rasoul ñu ngi lay nuyu di nuyu telespectateur yi di nuyu ñi ñu àndal. euh di jital ci nuyu bi sëriñ bi ñu àndal muy Oustaz Mahmoud Sy. nga xamante ne tey lañ àndal ci émission bi. mu fas yéene waxtaan ci yonente bi eh, waxtaan ci Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane mm-hmm. ak Mawlana Cheikh Ibrahim ñun ñu daal di koy feelu ci tudd yàlla mm-hmm. eh, duñ def dara lu dul bàyyi ko mm-hmm. moom mu nuyoo bu nuyoo dana nuyoo خضر ابراهيم يبي يب ان شاء الله ربي ما شاء الله نونو لا ريك نده جيو نبي كوم نكاي وخي ريك كيب كوي تيجان كيب كوي خاد كيب كوي لاين كيب كوي نياسين كيب كوي واخ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله امغا في بلاص كون نك ما شاء الله استاذ محمود سي استاذ نون لاي زياره دي لو اهلا وسهلا تي سي كير في ار تي اس 2 آه، دي لو مرحبا دي gërëm di la sant ci invitation bi ñu defal tay may ñu occasion pour ñu waxtaan ci yàlla ak yonentam waxtaan ci Cheikh Ahmad Tidiane chere waxtaan ci suñu wasila maulana Cheikh Isam El Hadji Ibrahima Niass kon nag dañuy wax ne alhamdulilahi rabbil alamin al alhamdulilahi al hamid majid al ma'bud al musta'an wa bihamdihi والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن وارث مقاماته ودرجاته وأسراره الصديق الأكبر الشيخ أحمد جان شريف ورضي الله عن عبد ذاته ممد في ذاته عبد ذاته مولانا شيخ الإسلام الحاج ابن يس ما شاء الله ورضى الله عن حبيبه وخليله ومحبوبه ومحموده مولانا أحمد ابن محمد ابن جبريل الخويلدسي المعروف بتشيرنوبيل radiyallahu anhu ñu ngi nuyu daal pays bi yëpp. Mm-hmm. di gërëm xale yi ñu àndal. di nuyu nuyu comme ni nga ko waxee léegi rek xalif généraux yëpp. Mm-hmm. rawatina suñu xalif général xaadimul ummati mm-hmm. Maulana Mohamed al Ibrahim Niass. ak képp kuy yeewoo Medina Baye. waa fayda bi yëpp daal njabootu Baay Ñas ñu ngi leen di waaye tamit ñu ngi nuyu taalibe yi ñuy seetaan ci alam bi yëpp ndaxte Baay moom comme ko xamee international waaye tamit euh, ñun ay suñu naan waay mooy Maolana Thierno Boubou Sy. Mhm. ñu ngi jaare ci loolu daal di nuyu xalifam tey. Mhm. di suñu mag di suñu kilifa nga xam ne moom moo fi teew tey. waaye dernière minute la am. empêchement mu daal di ñuy yebal ñu koy wax moo Mawlana oustaz Ibrahim si waaw moom moo ñu fi yebal kon ci loolu rek ñu delloo la kàddu gi daal nuyu ñëpp nuyu mbooloo yi ñuy seetaan ñëpp téléspectateurs yi di ñaan tamit yow it yàlla dëgëral sa taxawaay yàlla yaatal sa say mbiir ba mu kawee incha allah jërëjëf jërëjëf oustaz ñu jaaree fa rek ñun tam di nuyu ngeen àndal ñëpp ñu ngi leen di ziara xam naa bu ci kanamee du ñàkk ñu tudd leen benn par benn incha allah Samba ñu xam la ci tagg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa ak mag ñu baax ñi rawatina nag nga féetewoo ci ëttu kër Maam Baye ndax ku ne xam na ne nag yoon wi bari na ay kilifa waaye ku xëy aussi am nga foo xamante ne fa nga jokk mu jokk la ci buumu yàlla gi tey Samba nga ñëw fi ñu woowee géewu Nabiya geewna na bien ku ne xamna ne mam Baye ness ma sha allah ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam lolu benen dimension la et insha allah dinañ ci ñëwaat ci kanam mais tay ji loo ñuy may ci geewna na bien rek loo ñuy ubbee taggal ñu ko yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam أغيث أغيث يا منقيس الكون كربي بالمستوى منتهى من صفوة العربي أغيث أغيث يا منقيس الكون كربي بالمستوى منتهى من صفوة العربي أغيث أغيث يا منقيس الكون كربي بالمستوى منتهى من صفوة العربي أغيث أغيث يا منقيس الكون كربي بالمستوى منتهى من صفوة العربي ما في الدلال وما إلك الكفر أفضل من قد أصل الله مؤتي الفضل والأربي أعز أعز يا مقيس الكون لك ربي بمصبى مدغى من سبوة العربي نقم الملاحظ الصفيء الكون قاتبة بمرئي وصناع قاد لي أربي أعز أعز يا مقيس الكون لك ربي بمصبى مدغى من سبوة العربي وهو الذي استجل الغق مقتقما أوى إليه جميع رسل من قربي إذا إذا الكون لي كربي منتقى من صفوة العربي لبى لدعواتهم ورب قال له سلتصدى وصفات صفا كاسر النسب إذا إذا مقيس الكون لي كربي منتقى من صفوة العربي يقوي إليه في فئام لا لهم وزر سواه دينا سواكم من وراء الخجب إذا إذا مقيس الكون لي كربي منتقى أساق من صفوة الأرب يسقي ويصفه مقمود المقام ومقصود الأنام وهذا منطقة تلبي أغيث أغيث يا مغيث الكون لي كربي بمصطفى منتقى من صفوة الأرب إني ألوز بي في كل آونة أرجو نوال بلا ست ولا سبب أغيث أغيث يا مغيث الكون لي كربي بمصطفى منتقى من صفوة الأرب لا أتجه أملا كالله ولا أدى أدبا فقد تجردت عن علمي وعن أدبي أرض يا مخلص الكون لكربي بمصطفى منتقى من صفوة العربي لا ألتقي في قياتي زلة وأرى فوق الكبار بلا كد ولا تابي أرض يا مخلص الكون لكربي بمصطفى منتقى من صفوة العربي أرجو وآمل تفريج الكروب لأهل الدين قينا بلا كد ولا نسب أرض يا مخلص الكون لكربي بمصطفى منتقى من صبوت العربي هداية وقنا ونيل آفية أصدي لهم قلفنا مصطفى العربي أغيث أغيث يا مقيس الكون لكربي بمصطفى منتقى من صبوت العربي أغدى الإمام الذي نرجو هدايته أفيد فيدا يبقى دائما حكمي أغيث أغيث يا مقيس الكون لكربي بمصطفى منتقى من صبوت العربي ياتني من منك يومي ما دريت فلم أزيل الباب يومي لم أنل تلبي أغذر يا مقيس الكون لي كربي بمستوى منتقى من شفة الأربي لتغدى أني عن غير وزغزغتي بالمصطفى وأزل الفقر كذا وسبي أغذر يا مقيس الكون لي كربي بمستوى منتقى من شفة الأربي ظلل وساق الرجال الأسر قاتبة لقيدي أولي ما أبيه في قطبي يا مخلص الكون لكربي بمستوى متغى من سفوة الأربي يا ربي أرقن أنوفا كابر وتقوا وشددن عليه وتطل أدبي أغيث يا مخلص الكون لكربي بمستوى متغى من سفوة الأربي ننجو من البغي والقار المزل مدى أياهم وورثنا ولكل أبي أغيث يا مخلص الكون لكربي بمستوى متغى من سفوة الأربي زلزل إلهي أمور القب تعلمه وانزل عليه قاب الذل والصلب أعز يا مخيس الكون لكربي بمستوى مدفع من صفوة العرب صدق قرابا وموت الناس واتي إليه إفار والاجزاء قبل الموت والأتب أعز يا مخيس الكون لكربي بمستوى مدفع من صفوة العرب لم يلقى منك سوى بجس فإن له تقبرا جاوز المقبوض والأجب عجبي أعز أعز يا مقيس الكون لكربي بمستوى منتهى من صفوة العربي أعرف فؤادي وسمعي وأعرف بصري أن يورث الكفر يربو آتني جلبي أعز أعز يا مقيس الكون لكربي بمستوى منتهى من صفوة العربي يأتني سور ثم البير قاتبة لليل كل مرام رغم كل أبي أعز أعز يا مقيس الكون لكربي بمستوى منتهى من صفوة الخلافة العربي كم من سرور وأفضل ذيل موقبة وتصرن جوامي كذا كتبي أيضا إزيام قصة الكون الكربي بمصابة منتخى من صفوة العربي تغني المساكين والأجدام أجمعهم من فيض راقة قاز الأبد انقصب أيضا إزيام قصة الكون الكربي بمصابة منتخى من صفوة العربي أقي العلوم كذا أقي المعارف لا لا ميل للشغل والضغط قوى ولا كذبي أيضا يا مقيس الكون لكربي بمستوى منتهى من صفوة العربي بظاهر الشرق والنور المبين أرى بسالكين بلا شك ولا ريب أيضا يا مقيس الكون لكربي بمستوى منتهى من صفوة العربي وذلك الفيد من ربي ومن شاءه حقيقة المصطفى جالي أمل هيبي أيضا يا مقيس الكون لكربي بمستوى منتهى الغربان شفة الأرب هو الرسول الذي طابت أرومته وصفت الناس حقا غير كل نبي أي أي يا مقيس الكون لكهبي بمصطفى منتقى من شفة الأرب وهو الذي صعد الكونين قاتبة وضاق سعدي وقبلي كان صعد أبي أي أي يا مقيس الكون لكهبي بمصطفى منتقى من شفة العربي ما شاء الله ما شاء الله Alhamdulillah ñu santat yalla bu baax baax euh Samba macha allah kaddu yi nga yëkëti jëm ci yonent Muhammad sallallahu alayhi Wasallam amna solo Samba ngay ndaw mënoon taamu benen voix nga ne tay damay ñëw di tag yonent Muhammad sallallahu alayhi Wasallam ak ñu mag ñu baax ñi Samba lu la ci lolu waaw question bu tontu nak uh-huh. waaye lu ci wax rek moy ngëneel yàlla alhamdulilah euh, zalika fadlullah yuti man yasha mm-hmm. maanaam ngëneel la bu yàlla def si ñun rek ndaxte nekk nañ ndaw mm-hmm. euh, nekk ak suñuy morom ñu yitewoo mbiru àdduna mm-hmm. waaye woote yàlla moom bu ñëwee rek leneen lu ne ci ginnaawam rek dafay daal di fenk dëgg la loolu moo tax bañ déggee woote Mawlana Cheikh Ibrahim bi ñu ñëw daw si ut si ko xenc ko bañ ko xencoo nag ñu gis si ngëneel ñu xam ne lii mooy dudd àdduna ak alaaxira dëgg la gannaaw loolu noonu nag mhm. yàlla may ñu ñuy góor góorgóorlu mhm. di di góor góorgóorlu di topp ci jotaay sikar yeeg jotaay gàmm yi mhm. yàlla dañu xememloo dañu xememloo ba ñu dugg ci sikar si ñun sax mun ñu la wax mbir bi naka la yegsee si ñu comme ni ma ko waxee rek ci commencement bi Euh, ngëneel yàlla daal moom moo koy jox. alhamdulilah alhamdulilah macha allah yal na la ci yàlla dëgëral bu baax a baax gën la cee saxal. mais néanmoins jàng français. Mhm. yaa ngi jàng na saxaat. jàng nañ na ba ban classe. def nañ ba terminal. ah macha allah après ñu suivre transport logistique. waaw euh, ba licence. alhamdulilah macha allah waaw loolu day wane rek ne ñaari mbir yëpp mën nañ ko boole <laughs> yàlla na la yàlla barkeel te lépp ci loo ci yëngu rek yàlla teg ci loxoom barke na bi alayhi salaatu wasalaam oustaz macha allah nga nekk toujours ci émission Géewu Nabi ah. oustaz tey boo mën wax ci yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. lu ndaw rek ndax li may wax saa su ne. wax ci yonent bi moom. yaakaar naa ne géej la rek. <laughs> da ngay ñëw duy dem sa morom ñëw duy dem te du teree mbir mi daf fay des ba tey. macha allah tey jii nga war mën waxee ci yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa balaa ñuy dugg ci moom ak maam Baye ndax xam naa ne foofu lañuy ñuy gën a xóotal mais brièvement rek nga wax ma ci sallallahu alayhi wa sallam tey jii ah. loo ñuy baaxee ci géewu nabiya alhamdulilah euh, tàmbali nga ci tàmbaliwaay waaw nasaraan yaa ngi koy laaj léegi sàmm moom dafay ndax jàng na nasaraan waaye euh, nasaraan bi mooy wax ne ne commence par la lettre majuscule eh, lettre majuscule bi nga ma laaj. wallaay <laughs> ndaxte. Eh, <laughs> bu amul point nag. waaw waaw waaw ndaxte bu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam du jeex. <laughs> waaw du jeex te nit ñi ba léegi ñu koy gëstu. wallaay ndeysaan nit ñi ba léegi waaye doy na rek lu ci lu ñu si Mawlana Cheikh al-Islam El Hadj Ibrahima Niass jàngal. waaw. ndaxte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. damay di ko wax. Hmm. bu ne yonent bi sallallahu alayhi rek. Hmm. nit ñi jàpp. xam nga nit xel xel dafa doy doomu aadama. yàlla dafa def rek imagination commencé dugg. Mm-hmm. amul lu ñu lay tuddal même loo xamul te doo ko jéem a amal benn image. waaye ko tey bu ñu tuddee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu bëri dañuy yaakaar dañuy am seen image bu ñu am mooy benn mag. Mm-hmm. ku màgget. kii xam nga mm-hmm. ku doon jiite waaw waaye loolu sori na yonent bi. dëgg la yàlla man suñu sëriñ ma naa a ceen boobu dañu doon wax ne yàlla mosul yónni màgget. yàlla musul yónni mag musul yónni màgget yàlla ay ndaw rek lay yónni mhm. yónni bi salaa salaam jeune la woon waxambaane la woon bi nga xam ne mhm. waaye nag pas pour quel waxambaane waxambaane bi nga xamante ni <laughs> yàlla moo ko yaral boppam yàlla moo ko taggal boppam yàlla moo ko préparel boppam mhm. judd na waaye boo xoolee ndey yaru ko bàyyi yaru ko loolu yàlla dafa bëggoon raxas loxo ñëpp moom mu jëlal ko boppam waaye محمد صلى الله عليه وسلم موي كي خامني نكو باي جانغال اول الوجود وجودا با يالا دي خامل موم لا نيك خامل وهو اصل الاصول والأنجالي موم موي بايو باي اك بايو دومي اك سيتي يب موي سن باي كن يالا دوينا رك لوسي يالا واخ موم يالا نينا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين كن ينتب صلى الله عليه وسلم موي عين الرحمه te loolu tamit yaakaar naa bu doon Cheikh Ahmed Tidiane du ñu xam loolu. Cheikh Ahmed Tidiane mooy ne allahumma salli ala ayni rahmati ar-rabbaniya. yonent bi sallallahu alayhi wa ay mooy jëm ayni rahmati rabbaniya mooy. baatoo arab rek la waaye lu mu tekki mooy. kente su miséricorde yàlla. mooy jëmmi yéen maa ne yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg. yàlla dafay wax ci alquran mu ne man maa leen génnee mina zulumaati ila nuur. maa leen génne ci lëndëm. lëndëm mooy lan mooy ñàkk. ila nuur yóbbu la ci leer leer mooy leen am mhm. existence te loolu yëpp mu ngi amee mhm. ci mandam gu mag gi mu yonent bi la alayhi wa sallam bàyyi dafay faral mu ne lépp looy gis ci alam bi rek tabe bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam yonent bi mooy cosaanam comme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ngi may laaj mooy mhm. cosaanu lépp mooy cosaanu lépp te tamit mooy ku ñuy euh, ràmm mooy ki nga xam ne foo neere mu ngi ànd ak yow foo rek mu ngi ànd ak ñun. loolu nag wute na ak philosophie ñi nga xam ne ne. jàpp na ñeent bi sallallahu alayhi kenn la woon rek comme. Euh, wala iyaazu billah ñaan yàlla mosul ci loolu jàppee yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme benn lantinoor rek entonnoir bi nga xamante ni dafa am lu doon jaar li nga doon sotti mu jaar foofu rek dem déedéet ñooñu nañ ko suul nañ ko nañ mu ngi denc mu ngi tëdd fële amatu lañu amatuñu benn jëriñ déedéet yonent bi sori na loolu ni seconde ni tiercé di ànd ak yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi ànd ak yow daaxiran wa baatinan kenn du waaye nag kon yaa ngi may laaj ki nga xam ne wax naa rek wax nga amul point du am point phrase bi du am point mu ngi noonu macha allah ku ko bëgg a xam nag dëgg dëgg dëgg loolu xajul ci émission ku ko bëgg a xam dëgg dëgg mm-hmm, mm-hmm. dafa am lu mu laaj laaj na di jàng téere waaye di nga jàng téere ba sonn après di nga toog nga siggi est-ce que est uh-huh. nga xam ne nag am na am na loo xamante ne. du uh-huh. téere moo la koy xamal. Uh-huh. da ngay ut euh, cheikh murabbi ñu tarbiya la. xamal la kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam macha allah xamal la ko baatinan kan la dëgg-dëgg xaqiqatan kan la kan mooy yonent bi sallallahu boobaa di nga xam ne nag ne nekkate foo xan foo toog rek yaa ngi ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li may li may wax saa su nekk rek ku bëgg nopp lu daal neel sallallahu alayhi wa ah. mooy ki nga xamante lépp luy leer mm-hmm. mbaa muy dox mm-hmm. mbaa muy raam mm-hmm. mba lépp lu nekk ci àdduna rek moom moo tax ci barkeem ci darajaam la ko yàlla sàkkee kon boo kenn du moom mooy li nga xam ne buñ ko dindi woon ci ñoom wallaay jeex na jeex na jeex na <laughs> am na solo am na solo yàlla nu ko yàlla fayal am na solo euh, ñu xam leen ci ëttu kër Maam Baay macha allah <laughs> kilifa gu tedd googu nga xam ne boo koy tudd sax da ngay kontaan tey euh, boo ma doon wax tey jii seen wasila boobu lan nga ma ci mën a wax tey. Mawlana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass. li ma la waxoon ci yonent bi rek laa lay wax. ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam. ndaxte boo jàngee borom xam-xam yu mag yi. ci taarix. waaw ku mel ni Ibnu Khaldun. bëri na li ñu xam tey ci histoire bëri na li ñu xam lu bëri ci diine wala ci littérature arabe ibnu xaldum ak ci même si sociologie yu demee noonu lu si ëpp ibnu xaldum lañ ko xamee am na téere bu ñuy wax muqaddima muqaddima ibnu xaldum boo ko boo ko ubbee dafay wax di melal tasawu fu mu jóge ba muy wax te tasawu fu mu jóge dafay wax ne demoon na ba nga xam ne ne diine ginnaaw ba fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jóge ko zahiran diine dafa demoon ba commencé rab les principes mabadi diine ya principe islamique principe diine comme bu njëkk rek dafay Nuux nekkoon dafa Ibrahim nekkoon demoon na ba diine commencé di rab demoon ba diine di commencé di rab yàlla andi ku koy beesalaat fàttaliwaat nit ñi principe yooyu bu fi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëwee matal lépp nit ñi dañ dem ba commencé topp mondanité topp àdduna àdduna këf leen تيالا نمشي عدنا إنما الحياة الدنيا لعب ولا هو وإن دار الآخرة اللي هي الحيوان نيجي دين توب عدنا زخرف الحياة الدنيا توب عدنا توب عدنا بقى كم ما سيدي فاتي برينسيب إسلامي ينين تخونا جوك بس يالا دفنه ما خلقتو إنسا والجن لا يعبدونا تاكو من دوم آدم أك جنة دول نبور نجامهم نيجي نبين دم بقى كم ما سيدي رير رير لندم كم ما سيدي نمور gis nga sa yent bala période boobu ñu ngi ko tuddee jaahiliya waaw l'ignorance lu taxoon nit ñi amoon nañu xam-xam ñu ngi doon jàng xam nañu xam nañu science xam nañu bëri mhm. waaye ignorance bi c'était par rapport à quoi par rapport ak seen borom waaw ñoo yàlla andi yonent bi nag mu nekk maaxi dalaali kuy effacer ignorance boobu moo tax ci téere bi lu ko yàlla njëkk wax mooy iqra du moom sax yàlla doon junj iqra mhm. mais wane na ñun nag ummatu mhm. moom mu ngi mu juddoo ci umma bi nga xam ne ñu ne ummi yi ñi nga xam ne ay illettrés lañ kon yàlla am na lu mu namoon foofu. dëgg la mbiru saa ñëw nag matal diineem. Mhm. waaye adduna dafa doy waar. Mhm. bakkan commencé réeral nit ci encore nit ñi mhm. commencé topp seen bakkan. gis nga sax lu xew ci biir histoire yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla andi nag. nu ko nu ko ko nu ko nu ko alxuraan waxee ne ah, innamaa yaxsha llaaha min ibaadihi innamaa yaxsha llaaha min ibaadihi al-ulamaa. ñi gën a ragal yàlla ci umma. ci ci xeet bi communauté bi mooy borom xam-xam yi. su xam ba xam ne li ngay dégg mooy ñoom ñooy war a satul anbiya ñoom ñooy doon yonent yi yàlla mooy ñun ñun moom ñoom la ñu wooy saalihiina yi mm-hmm. nit ñu sell ñi yàlla andi ko mel ni Cheikh Ahmad Tidiane Sharif ñooñu ñëw encore delluwaat nit ñi mm-hmm. maanaam delluwaat buum ci mboy mboy ga delluwaat nit ñi si yàlla mm-hmm. noonu it Cheikh Ahmad Tidiane dafa prédire woon ne jamono dina ñëw ñu ngi toll ci crise crise bu ñëwee dina am nag luy ñëw lu tudd fayda ndaxte Cheikh Ahmadou yàlla lu mu àndi rek la. lan la istixfaar astaxfirullah parce que yàlla moo ne na ngeen tudd yàlla bil xaduy wal asaali. bil xadaati wal ashi suba ak ngoon. na ngeen di tudd yàlla. dëgg la. Cheikh Ahmadou yàlla na leen waat loolu. parce que nit ñi loolu lañ demoon ba bàyyi. moo tax tey boo yow fajar li ngay dégg. yaa ngi dégg astaghfirullah azim alladhi la ilaha illa huwa ngoon tamit yaa ngi dégg astaghfirullah allahumma salli ala muhammadin la ilaha illa allah la ilaha illa allah loolu moo manqué woon dëgg la loolu moo demoon ba commencé rap ci commencé ko suul Cheikh Ahmed Tidiane andi loolu ba léegi nag mu mu prédire mu ne jamono dina ñëw nit ñi dinañ nekk ci crise bu tar tar tar waaye nag boobaa dina am lu feeñ lu leen di siy génnee mu tudde ko alfayda ci fayda boobu sax la ñuy taxaw ndax dinaa dama bëgg ñu toj ko waaw ñëwaguma ci bàyyi mais balaa ñu koy toj <laughs> dama bëgg Samba Zakir itam nga bàyyi ko mu may ma tuuti foofu noonu daal ndax fayda lu am solo la Mawlana mm. Cheikh Islam El Hadji Niass waaw mu mu leeral boppam mm-hmm. ndaxte loo gën a loo xam sàmm ma sàmm gën laa xam boppam dëgg la mm-hmm. mu ne aw jotini xaqani jabril kasri mu ne yàlla leen rek la ma sàkkee waaw fossé bu dox diggante nit ñi ak seen borom mm-hmm. ma comblé ko wallaay wallaay kooku mooy Mawlana Cheikh Ibrahima mooy saaxibu fayda kenn du moom <laughs> waaw incha allah dinañ ci macha allah Samba <laughs> li mu wax dafa neex ba damay wax rek damay ñaan rek nga yëkkatil ma dara ci sa ci sa wasila boobu macha allah أصبيبي به وبطاقة أصبي بشايق تجاني أصبيبي به وبطاقة أصبي بشيخ تجاني أصبيبي به وبطاقة أصبي بشايق تجاني أصبيبي به وبطاقة أصبي تجاني أصبي ببار الرؤوف الناس حسبي به وكفاني حسبي به وبطه حسبي بشيخ تجاني قلبي له والمرامي وقال بكل آني ربي فدارك بيدا سرعة دون تواني حسبي به وبطه سيف تجاني لا تشمتنا لا أدي ولا توازي جناني حسيبي وبطه حسيبي سيف تجاني فجعل فؤادك سقر ولا تسر قباني حسيبي وبطه حسيبي سيف تجاني وتعفي لكل زمان التقوى وتاتي هذا الأماني حسبي بي وبتحاسب شيخ تجاني بجاء خير البرايا جاء سيق تجاني وجاء سيقي وأصلي والدي هذا المآني حسبي بي الشيخ تجاني مام الغادي عبد الإلهي بغجتي طول الأواني حبيبي وبتاه حبيبي شيخ تجاني ملا يا مقامي فرعة في زماني حبيبي وبتاه حبيبي شيخ تجاني ملا به صالح صراط دون تواني حسبي به وبطه حسبي بشيخ تجاني فلا سؤاد سوائي قائل على المعاني حسبي به وبطه حسبي بشيخ تجاني أنا جيت كنت جاني لأجل أمر الدار حسبي به وبطاقة حسبي بالشيخ تجاني ملانه أمد يا وذات منقد آني حسبي به وبطاقة حسبي بالشيخ تجاني سقي مولاي أحمد نظرتي ورجائي وممكزي وجناني حسبي به وبطاقة حسبي بشافتي جاني قطب البرايا جميعا بل هو شمس زماني حسبي به وبطاقة حسبي بشافتي جاني كل سر في البرايا مجأ سر تجاني أسبي به وبتاها أسبي بشافة جانيت في الأبد المنى إطافكم الكباني أسبي به وبتاها أسبي بشافة جاني أسكى سلام سلامي الله ضيم جفاي ما شاء الله آه، استاذ آه، آه، طيب. <laughs> ما شاء الله يالنا يالا الحمد لله نيو واخ سانخ لا فايدة. macha allah muy baat boo xamante ne ku ko mhm. dégg rek yaakaar naa ne ci yéen la ëpp luñ koy déggee boobu dëgg la dëgg la lan mooy fayda ak biwu fayda lan la waaw tey ci ñun nga koy déggee ndaxte ñun ñoo ko moom ndeysaan est-ce <laughs> te li ko li bàyyi waxee rek waaw yaa ngi ma koy laaj léegi-léegi mhm. boo waxee fayda rek wax nga bàyyi boo waxee bàyyi wax nga fayda waaw suru loolu nga dégg ñu attribué ko keneen ku dul moom mhm, waaye alhamdulilah l'histoire lui a donné raison. Donner ça, moom utul woon raison. moom li mu ut rek mooy yàlla la guerre. waaw sallallahu alayhi c'est sallam. ndaxte lu mu ko waxee sànq rek. dafa woo déclaré mu ne aw jotee nii xàqan. yàlla daf ma amal dëgg-dëgg en réalité. li jabril kasri. ndax ma dam damm damm ba am. ma jàng ko. dang ma bu ñuy damm diine. ma jàng ko ma jàng ko ma suude ko. Baye Niass radiyallahu anhu dafa Cheikh Ahmed Tidiane ko jox fayda ne ko yow yaay doxal fayda ndax bu comme juñu naa la ko léegi mhm. Cheikh Ahmed Tidiane wax ne ne bés dina ñëw crise dina am waaw comme nu mu la ko waxee léegi rek mhm. crise des mœurs ci mhm. jikko yi ci diine ci xam ci ci lu mu mënti doon dina xew waaye bu ñëwee rek dina am lu ne di sauver dina am déluge wala mm. inondation wala fayda fayda la ko tuddee mm-hmm. fayda dina génn fayda source fayda mus mm-hmm. naa dégg benn borom xam-xam di ko firi radiallahu anhu Ibrahim Mahmoud Diop mm-hmm. mu ne dafa mel ni ngay tëbb si géej di sotti si teen boo xam ne du fees donc fayda boobu Cheikh Ahmadou Tidiane moo ko moom waaye daf ko déclaré woon ne ne dina ñëw ci loxo góor gi nga xam ne ne. bu ñu bu feeñee ñëpp war nañ ko topp pour mën a jëriñu. kon quintessence su fay tariqa tijaaniya. waaw essence su tariqa tijaaniya. mooy alfayda. wala kulli qawmin haadin. inna la fa'aalun limaa yurid yàlla ne mooy def lu ko neex. mooy borom dogal yi. yàlla dafa dogal. mu rot ci loxo. Mawlana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass mu koy doxal mu ne udiiroo ustil qawma turan bi faydati mu ne man maay servir ñëpp ku ko war a naan ci fayda rek man maa la koy man maa lay servir su ko ma servirul doo naan lu tax mu ne ana ni xalifati tijaani yi xam nga bàyyi kenn mënu ko sosal ñun mënuñu nekk fii ay àll jàppuñu. Mhm. wala dara jàppuñu rek ñu ne dañuy sosal ba Maolana. léppam def ko bind. bind la waaw. Mhm. léppam ay kaset la ñu ngay dégg. buñ ko buggee gis ñun buñ ko namee. Mhm. gis ko. ubbi suñu portale yi xool ko gis ko ci photo buñ ko nammee déglu ko mu wax ñu ah. dégg buñ ko nammee liir téeréem ay bindam buñ ko nammee xo am ay vidéo muy wax ñu koy gis kooku duñu aal wala dara diñu jàpp ba ñu koy sosal من إذ أنني خليفة التجاني نعم. من ماي خليفة شيخ أحمد تجاني موهبة من أحمد الأدناني ميل بن أحمد تجاني يلا كي أنت مشيخ تجاني يوم ماي لولو كون ليريتي ليجيتيم دو شيخ أحمد تجاني شريف ما شاء الله دمنا صاحب واخلو جنا سوري لولو نحتي واحنا نني man maay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo ko portalee man ngay gis lu lu koy may loolu mooy bëgg bu mu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla benn buntu rek la am mhm. muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn buntu rek la am muy man ñuy bàyyi <laughs> ndax cofeel ndeysaan <laughs> loolu nag te ba pare nag yemu ci ba daf ko am ba pare mu fiir ci nag ndeysaan ndeysaan mu ne nii la xiiratu mi man yarumu Muhammad dama bëgg Muhammad ba fiire ko mu ne képp ku ma bëgg a raw nag ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam taxawal nga jël sa baaraam nga jàpp weer bi andi ko wala nga delloo si dem mustahil loolu amut loolu mënta nekk est-ce que est-ce que loolu lu jomb la mm-hmm. kon ba ñuy waxal Baye Niass mm-hmm. Baye Niass mooy ki nga xamante ni moom mooy mooy yore fayda mm-hmm. di xel góor yàlla yi ñuy naan ci fayda mooy ki nga xam ne ne moom la Cheikh Ahmad Tidiane waxoon ne ne mu jël teen jamono bu ñëwee di nga gindi jaam yi jële leen ci réer yóbbu leen ci leer mu ne wa bii yurfaul jawrul azim man Baye Niass tooñ tooñ bi ñuy tooñ l'islam tooñ bi ñuy tooñ yonent bi sallallahu alayhi wasallam gis nga jamono wane na lool ñu ngi caricature fi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu ngi islamophobie mu ngi développé mu ne wa bii nag ci man yurfaul jawru tooñ bi si man lay jeexee man maa jeexal tooñ boobu kooku mm-hmm. mooy Maolana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass. ak yeneen ak yeneen yoo xamante <laughs> ah, fu ñu jaar ak yow rek. nga mën a nga mën a nga <laughs> euh, ñëw ci Baye ak euh, faydu bi ñëw ci Baye ak euh, Cheikh Ahmad al Tidiane Chérif. radiyallahu taala anhu waaye bëgg nga ñëwal ma ci Baye Niass ak la jeunesse. pratiquement li ñu doon wax léegi rek. waaw ci loolu ngeen jël si waat. ndaxte fépp fu nga xam ne. lislaam. waaw xàgg na fa. Maulana Cheikh al Islam El Hadj Wala yóbbu na fa fayda. waaye fu fayda bi xàgg. waaw baa ñu si yóbbu na foofu diine bi. li ma bëgg foofu foofu je m'explique. waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu fiy jógee. waaw l'islam ci quelques contre rek la yemoon. Mhm. si na Aboubacar ñëw. Mhm. yaatal si na ñëw ubbi. Mhm. def euh, futuhaat yi. l'islam di gën a màgg. waaye Ousmane noonu. Seyna Ali noonu. ñoom ñëpp radiyallahu anhum waaye Baye Niass ba mu ñëwee yóbbu na diine bi fi nga xamante ni. ñooñu xam seen tànk tegul woon foofu. ba mu yóbbee foofu noonu diine bi. yow xàggal na foofu tariqa bi. ba mu xàggale foofu tariqa bi wasaare na foofu fayda bi lan moo tax ndaxte diine ak tariqa ak fayda ay appellations yi différentes la mais la c'est la même et unique chose benn mbir mi rek la mooy texeel jaam yi yóbbu lañ ñu xàgg si seen borom nga ne bàññis ak jeunesse wax naa la fii yàlla mosul yéen a màggat waaye yàlla it boo dégg lu muy wax ci quran yëpp ñu muy melal innahum fityatun amanu bi rabbihim ñoom ay jeunesse c'était une jeunesse ñi nga xam ne ni ils croyaient en leur seigneur ah yatuuf alayhim wildaanun muxalladun aljana nee na ay jeune xale yi ndaw ñoo fi nekk di baagante kon boo waxee bàññees ak jeunesse wax nga bàññees ak diine wax nga yonent bi ak ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax naa la léegi-léegi fii du woon mag du woon màgget jeune la woon xoolal ñi taxawal diine tey ñëpp ñu taxawal ñu généraux yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon yónni ces ambassadeurs ñu ko waroon ñëpp ay xale la ñu woon laaj nañu Seydina euh, laaj nañu euh, Abu Sufyaan ñu ni ko moom ñan ñoo ko topp hmm. mu ne moom da ay xale rek ñoo koy topp <laughs> mu ne ah ba ma waxee ne ay xale ñoo koy topp ku fa yàlla fasa yónni rek ay xale ñoo koy topp kon boo waxee bàncax ak jeunesse yaa ngi ñuy fàttali yonent bi ak jeunesse yaa ngi fàttali euh, Cheikh Ahmad Tidiane ak jeunesse. Mm-hmm, mm-hmm. ndaxte ci tariqa bi ngay gis. yéen itam ah, Cheikh Ahmad Tidiane dafa waxoon mu ne. Mm-hmm. mag bu la laajee sama tariqa jox ko. mu ngi koy waxal muqaddama mi. ndooy ndaw bu la laajee sama tariqa bi sama mbir bi jox ko. tariqatu Tidiane pratiquement rek ngay gis. ay xale ndaw. si nga ñii ba ñuy ñëw si faydu bi <laughs> suñ la woon mën nañ la woon ay photo ay cuuj la ñu woon ay <laughs> xale yu tuuti te bàññi sa loolu déclaré mën a ñëw naa ci yow nekk ndaw ba may nekk cuuj bu ndaw ñëw naa ci yow ba may nekk uh-huh. uh-huh. waxambaane ñëw naa ci yow ba ni ñëw naa ci yow uh-huh. tariqa tijaan mooy tariqa bi nga xam ne ne ay ndaw rek ñoo ko fees dëgg la ay ndaw rek parce que l'islam ay ndaw moo ko moo ko waaye bàññees dafa wax mu ne wal ummatu ba ñu définir la mooy ummatu ummatu mooy la communauté islamique la communauté islamique wax naa la c'est fait des jeunes jeunes yi rek la parce que lépp lu taxaw fii jeunes yi ñoo ko taxaw ñoo doon dem dirigé bay xeex yi ga ay xaalim la wala ñun ñëpp ku leen ci mënta wax rek ñun ñëpp ay xale la ñu woon xale yooyu ñoo taxawal diine xale yooyu ñoo taxawal tamit fayda bi ñoo nekk ci fayda bi bàñes dafa ne donc communauté bi comme que ay jeunes lañ mu ne qasdi ilayhim lu ma su ma jubluwaay si ñoom mooy an asuqahum ila hadratil barri raufi ilahina mooy ma jël leen yóbbu leen si seen borom te xale yi nag loolu rek lañ soxla. dëgg la dëgg la gis tey jii xale yi dañuy xaw a nekk bu ñu nekk ci perdition. Mm-hmm. xaw a réer mm-hmm. di dugg ci lañu wartu dugg. Mm-hmm. c'est parce que amuñu ku leen di jàpp di leen bu njëkk boo ñëwoon ci ñenn ñi di leen laaj tari xam ne naan yow xale nga damal tàggu sa yaay amul <laughs> tàggu te diine amul tàggu yaay amul tàggu papa ci mm. lislaam bàyyi ak doom yi yenoon janoog di xeex wallaay wallaay do baay bi ne ko doo ko topp suñu xërëm ngay topp doom bi ne ko dama lay génne si sa xërëm bi dugal si diine wala ma yóbbu la sax wallaay wallaay jarbaat kon diine mm-hmm, mm-hmm. diine bu ñu lay wax ku njëkk shahid si diine mm-hmm. su may su may yaa lan la dañ ko ne weydil Mouhamed mu ne duma weydi Mouhamed ñu rey ko mu shahid rey bu ñaaw <laughs> ah? même phénomène bi ñuy wax tey jii ñuy wax ci dajjal nga xam ne mooy réeral nit ñi ñu ne da lay génnaloo ci diine am na ajjana boppam nag waaye ajanam bi boo ci duggee safara la. safaram bi boo ci duggee aljana la. est te nag nga xam na ne kon xale yi lan lañ soxla ku leen teg ci yoon. Mm-hmm. leen di yóbbu seen borom. te xam na fossé bu mag bu bu nag seen diggante. Mm-hmm. te fossé boobu mooy ñan mooy mag ñi rek. wallaay wallaay. te di ngeen dox seen mm-hmm. jamono ba si kanam. yow nangam nangam. waaw dem ngeen jàngi. wallaay ngeen ji te texe àdduna ak àllaaxira baañes nee na man lam yenal maarifata rahmaani. macha allah amaanahu daat madal asmaani. ko mos ko xamul yàlla. liggéey lu la neex mhm. amal lu la neex mhm. waaye sa dund yëpp sànku na mhm. balaa nag dund boobu di sànku nag mu sauvé jël leen yóbbul leen si seen borom macha allah macha allah donc moo fu may tëjee mu ne hmm, alawtul bihaara azzaxiraati wa inna nii alawtul mudna wal arna qura wal mudna bal hal jibaala aromo ridal baari li nusrati diinihi wa abdalil jiilil jadiidi fi nga xamee kan mooy mu ne man dama déglul bu baax bàññees mu ne dama survolé montagne dama surveiller euh, ville mhm. ak village yi. Mhm. dama surveiller océan yi. dama surveiller les mers dama mhm. surveiller lépp. waaye nga yaakaar noonu moo taxoon may may loolu yëpp. mu ne li nusrati diine pour dimbali diine yàlla bi. wallaahi wallaahi dal baar yi. ut ngërmaane yàlla. wa nusrati diine ak dimbali diine bi. waaye nag lu gën su gën a essentiel man. wa obliger lil jiilil jadidil misaala. pour wan la nouvelle génération. la bonne voie à suivre. kon boo nee Baye mooy ki nga mm-hmm. xamante ni mm-hmm. leader comme ni mm-hmm. yàlla waxee woon ci yonent parce que moom waaris Muhammad yi na wala ko fii rasulullah uswatun hasana am dafay donn loolu loolu xale yi yóbbu leen ci seen borom waaye pour la bonne voie la bonne voie mooy foo mënti dem. Mhm. foo mënti nekk rek. nga jublu sa borom. macha allah sa diine mat. am na solo bi ginnaaw loolu nag loo amee sa borom nag nga wut ko mu mhm. barkeel. Mhm. kooku mooy Mawlana Cheikh. macha allah am na solo am na solo tey it leer na nañ ndax gis nañ ne comme ni nga ko waxee euh, Mawlana Cheikh Ibrahim yal na ko yàlla fayal. ndax euh, jël na ndaw ñi. wan leen la voie à suivre comme ni ñu koy waxee muy teg leen ci yoonu siratal mustaqim waaye ci loolu teg ci yoonu siratal mustaqim boobu da leen wanaale civilisation ndax nag macha allah civilisation dafa bokk ci diine ba tax na tey jii foo gis euh, talibe mam baay dama naa rek talibe tijaan wala jullit daal dëgg-dëgg akan euh, da ngay gis ne leer mu ci ñoom ndax macha allah set nañu sel nañu te kurus gi duñ ko bàyyi ginnaaw baatu laa ilaaha illallaah di zikr bi duñ ko bàyyi ginnaaw ci zikr boobu ma taxaw fa te ji bu ma la doon laaj ci maam Baye ak zikr loolu sax est-ce que du ma ko laaj Samba mi nga xam ne ci la moo ciy yëngu a ah, Samba waaw dinaa ko dinaa ko ko paas. waaw ayca kon bisimilah dem ci ba pare moom mu soog a zikk ak ñu ñu dégluwaat ko tuuti. ba ba dafa ne soo soo xool ma. soo ma ah, xoolee. Ah. da gis am na ñu ma wër. Mhm. فتيان صدق قد أخلصوا إلى الله قصدا لن نموت ولن نحيا من من سوما soo ني xoolee ñi موي اي جينيس ay jeunesse جينيس لي لا فتيان la جينيس ندو يو دغ ño xamne dañu dëggu lan lañ dëggu dañoo dëggu ci yàlla seen djublu way yeb yàlla yàlla lañ yàlla lañ djublu han dund ñu deewu ñu faale wuñ dund faale wuñ de ñun yàlla rek lañ faale motax fi do fi luñu baxo won même bu njëkk boo xoolee yéen eh, yéen yéen ay archive ah. xool nañ ñu doon ñu doon teewal diine ay màggat rek nga doon gis ñu toog dégg waaye léegi xoolal Baye Niass moo andi ah, révolution boobu loolu Baye Niass moo andi révolution moo tax ñii ba ñuy ñëw du ñu woon saa yi sikarkat mm-hmm. dañ doon ñëw di roy sikarkat yi mag yi lañ doon roy ba tey ji raw nañu mag yi ndaxte loolu la Baye Niass loolu la mm-hmm. suñu sëriñ suñu benn sëriñ bu baax mm-hmm. ñu ko ceen Abdourahmane Ba yan yàlla leeral euh, leeral ko yokk taas ñu si barkeem da doon wax ne mhm. am na ñetti am na am na façon picc yi nga xam ne ne bu ñu nenee nañ koy naan mhm. am na nga xam ne bu ñu nenee mhm. du am cuuc waaye am na picc xam ne bu ñu nenee dinañ ko bóof mu am ay cuuc cuuc yooyu màgg moo ne mooy jeunesse bii mooy jeunesse baa ngi jeunesse fayda uh-huh. moo tax ñii tey mm. ñu raw ñii tey bàyyi ñes ñii la doon wax ñii la doon wax mu ne taraahum sukkuta da nga leen si ñu doon toog wala maqaama mushira fekk seen maqaama lu la. mu ne ni ngay gisee montagnes yi ñuy mm-hmm. ñuy ñuy euh, niir yi ñuy dox. Mm-hmm. montagnes yi ñuy dox doxu niir yi. Mm-hmm. boo leen ñoom tamit noonu lañ mel. waaw gis ni simple nag. waaye nga xam ne fu kawe lañ si ñu kawe seen borom. kon samb mën na moom e-, exemple bu leer rek ñii ñëpp. ñii ñëpp daanaka moo leen formé. waaye moom tamit ay ay ay magam te nii la leen formé woon kon yàlla may ko nag yàlla may ko baat mm-hmm. bu raf bu baax mm-hmm. waaye yàlla may ko dëggu waaye itam li nga wax léegi-léegi moo ci nekk sell mm-hmm. mbir mi boo ci nekkee boo ko sellalee rek nga dem dëgg la macha allah te bàñes loolu la lu muy njëkk a def mooy sellal sa bakkan wulli sa bakkan bi ba mu nooy nooy nooy ba nga ba nga kii waaw moo tax ñi ñeewuñu benn mag noonu la ñeewuñu benn wali yàlla ñoom sa jopp mën a gis ay wali yàlla lay <laughs> alhamdulilah macha allah sant yàlla donc ci zikr yooyu euh, loo ñu ciy may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 yuarifuni kayfa laa ilaaha illallah yéen xam leen yàlla bala ngeen a dem laa ilaaha illallah doo xamal yàlla soo koy jaamu laa ilaaha illallah ki nga xamul noo koy jaamu laa ilaaha illallah ki nga xamul noo koy jaamu laa ilaaha illallah mutu qabla an tamutu laa ilaaha illallah yàlla bala ñuy delloo la ilaha illallah ñu dellu si yàlla bala ñuy delloo la ilaha illallah ñun waa kër Baay xam nañ yàlla la ilaha illallah ñun waa kër Baay xam nañ yàlla la ilaha illallah xam nañ yàlla gis nañ yàlla la ilaha illallah xam nañ yàlla gis nañ yàlla la xamle yàlla la ilaha illallah foo ko wedde foo bal kurus la ilaha illallah boo la jàppe nga xam yàlla la ilaha illallah baay moo fi xamle yàlla la ilaha illallah xaw sa yaa ngay raamal baay la ilaha illallah xaw sa yaa ngay raamal baay ñas la ilaha illallah nan ca Baay Ñas la international la ilaha illallah Allahu ci Baay la ilaha illallah Samba Samba fi nga dugg am na solo dafa bari ay volet sax nag ah ndax nag macha Samba dafa ñu nene nañ dellu ci yàlla balaa ñuy delloo kaddu gu am solo ah ñu ciy jàng rek que ni nañ defaraat toogaay ndax nag jamono toll na foo xam ne jaxasoo na doy na waar nit ñi dañuy fàtte sax ndeysaan la voie à suivre pour jëm ci yàlla alors ko mag ñu baax ñaa ngi fi bind nañ bàyyi fi jàngale nañ lépp kon nag macha allah nañ leen dellu si yàlla balaa ñu ñuy delloo am na solo sàmba waaye sa tëj nga ne bàyyi mooy l'international ah macha allah loolu ku ne xam na ko ndax nag ku ñëw euh, Nigéria pour ne citer que Nigéria rek ndax bari na ay yeneen dëkk yoo xamante ne tey jii maam Baye ñas euh, moo leen xamal tey seen diine. wallaahi maam Baye Niass l'international <laughs> lan nga ma ciy wax. waroon na la wax waroon na la sax wax ne ne boo bëggee xam kuy Baye Niass demal foire international. waaw xam naa xam naa nag foofu la ñuy jaaree rek incha allah <laughs> aussi. ndeysaan temps bi xam nga dafa xaw a xat. dëgg la ndeysaan <laughs> waaw. xam naa dañuy wax ci maam Baye Niass l'international rek. ñu bàyyi leen ngeen tàggatoo ci mbiru gàtt rek. dëgg la incha allah ndax temps bi moo ñu xaw a xat. dëgg la waaw Baye Niass lu tax mu nekk international. Uh-huh. dafa doon yonent bi. Mhm, sallallahu alayhi wa sallam yonent bu neeree dañ ko yónnee woon ci benn communauté restreinte. waaw ci benn groupe ci benn espace bu yem lañ ko yónni woon waaye yonent ba mu ñëwee dañ ko tinki bàyyi tamit ba muy am ndigal al isnul mutlaq la am ndigal bu ñu tinki la am moom restreindre ko ci ay nombre parce que même tarixa bi noonu la woon boo xam ne ci am ne naan dix personnes da nga am nii wala nombre bi wala mën a fii rek domaine bii rek ngay mën a joxe eh, wërd bi waaye nag maam Baye ijaazatul mutlaq la am wiraasa mutlaq la am wiraasa mutlaq la am te Baye Niass. Mhm. radiyallahu anhu boo xoolee. Mhm. mooy dekkal sunna. Baye dafa dekkal sunna. dekkal sunna bi mooy lan. Mhm. yonent bi dafa ne. ngën ji kàddu bi nga xam te ne yonent yu ma jiitu ak man ba léegi loolu moom la leen yàlla joxoon mooy laa ilaha illallah ci Baye Niass la baatu laa ilaha illallah amatee valeur dëgg dëgg dëgg amoon nga xam ne bu ñu la ko maasee rek nga yëngutu te ya te loolu moo nekkoon xaar ade aaday loolu mooy aaday diine. Bagnès international waxna naa la ko fii léegi amul fo xamne demu fa. amul koy xalat ci les figures emblématiques. de l'histoire Bagnès mbeukante jëflante wala yo général Tito. buur mom moom nee na buur ñoo ñoo koy bayal tolam buur yi ñoo ko doon bayal tolam jamal Abdel Nasser Égypte. ah Nigéria buur kanu. fo xalat koo xalaat buur boo xalaat ci kaw suuf fu nekk dem na fa waaye nag yéen jàngale yonent bi salaa salaam moo ko yóbbu woon euh, na man bi zahiri shari sharia mm-hmm. Mm-hmm. wa nuuril mubin al alquran rabbi salikina mm-hmm. moom laay tarbiyee ñii di dugg ci diine bi ñii di dugg ci ci ci fayda bi bi la shakkin wala rayb ci lu am ci lu leer ci lu évident kon boog bàññees international la ndaxte bàññees yonent bi salaa salaam waxoon na ne jamono dina ñëw nga gis ki nga xam ne ne

mu ngi noonu. dëgg la kooku mooy Maolana Cheikh El Hadj Abdoulaye Niass lépp nag xaju daal Mame Mbaye <laughs> daal. nag may ah. loolu yëpp nag lenn rek la mooy. ku ma topp ma wan la yàlla. wallaay ku la topp ma xamal la yàlla. macha allah te loolu moo fi tumuranke woon. am na solo yonent yëpp loolu la ñu bëggoon gis seen borom. Ibrahima loolu ku nekk ah. mooy lan. kaay leen ma wan leen seen borom ngeen janoo moom. <laughs> wax na ko wane na ko. allah ku xool ay taalibeem comme ni mu ko gis ñoom ci fulla gis ci ñoom fayda gis ci ñoom civilisation waaye gis ci ñoom bëgg yàlla ak topp yàlla kon yàlla nañu ko yàlla fayal temps gàtt rek mais incha allah yéen il faut ngeen ñëwaat <laughs> Samba comme que waxtu wi xat nañu émission bi nag day selbeloo rek laa ko may tey ndax taalibe maam Baye Niass la waaye ba ma ne yéen laa invité dafa bëgg lool lool lool lool <laughs> donc xam naa tey jii da ngay tàggatoo rek incha allah ci lu gàtt. incha allah ñu joxantewaat rendez-vous rek beneen yoon bu neexee yàlla ñu mën a yeggaliwaat ndax maam Baye moom du du doy waxtaan ci benn émission rajo si nga tàggatoo rek incha allah ñu mën a tëj beneen yoon rek waa Zik aca bisimilah incha allah. allah allah la ilaha illa allah allah la ilaha illa allah الله يبقى الباي مولاي نوب البرقان يوليو سر الله بايك كيرا الله الله لا اله الا الله الله الله لا اله الا الله الله الله يستتاب الله الله يا الله الله والله للخيرات باب الله الله وهو أمن وأمان الله الله وتآمن وسراب الله الله وهو در وهو كنز الله الله وهو لب ولباب الله الله أن ليس فيها الله الله حب تعالى يا باب الله الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا allah <laughs> bu sell bi la ñu ubbee moom la ñu tëjee baatu laa ilaha illallah muhammad rasulillahi yal na yàlla fay ñu leen sàmba ñu ngi lay gërëm bu baax a baax yàlla naa lay wéral cër yi wéral baat bi ouverture c'était votre émission ici à la RTS2 di leen wax rek ne lu juwa jeexul jógu fa incha allah beneen vendredi ñu invité waat keneen rek mu ñëwaat ndax lépp ci diine la xaj rek yal na yàlla fayal ñu suñu gars yi waaye tamit sama techniciens yi réalisateurs yi caméraman yi yéen ñëpp rek yal na yàlla fayal ñu leen. Aimé mu ngi ca gannaaw Sabasi mu ngi sama gauche. Ah, sama grand ma sœur mu ngi à droite lépp ñoom la yal na yàlla fay leen te dëgëral leen ñun suñu paré gaddu suñu saak dem ñibbi bay leen fi ñom ñu nekkaat ci liggéey bi kenn du ñom yal na yàlla fayal ñu leen comme on les appelle les hommes de l'ombre yal na yàlla wéral leen yalla dëgëral leen ubbi seeni xewal bi xormati nabi alayhi salaatu wasalaam secrétaire bi bi ñëw na moo di Barhama Barham TV